tey léegi nag dafa am sondage bu ma bëgg ñu def maa ngi defe naa bu ngeen xoolee photo bi ñetti candidat ñoo fi sol mbaxana mi maanaam def fu kilifa su ma juumul man kenn laa xàmmee ci ñoom man kenn laa xàmmee ci ñoom mooy Basiru cum kilifa la mat sëkk ñi la def moom léegi da ngay ci suufu commentaire yi nga xool bi nga xam ne yow jàpp nga ne am na yenn yoo xam ne nag moom boo ko commentaire ragal naa naa la bloqué ci page bi xaw ma beneen page mais fii am na yenn candidat yoo xam ne yi nga xam ne leen na ma ne yi moo leen ngemb moom boo ko bolo boo ko defee fii man daal la génne euh, sama page bi na wax ji leer Basirou mu ngi ci kaw macha allah moom mu ngi ci kaw Anta Babacar Ngom it mën ngeen ko votel ndax moom nax nañu ba dugg ci rek ba bokk na ci histoire Sénégal rek Anta